faslu li ab dog la fil barahiini ci layya ay lay maanaam melo yamu jotoon a wax ci sunu borom da caa bëgg indi ay lay maanaam lu ko dëgëral loo xam ne da nga mën a jàpp ne ni ñu ko waxee rek noona la amee amul lu koy toppale melo yamu njëkk a wax ci sunu borom mooy da nga ne woon lu am am la du rek lu ñu wax te amut mu ne nag liy dëgëral ne yàlla am na mooy mooy lépp lu bokkute yàlla am nga mu am day wane rek am nga yàlla ndax mbindeef te mooy lu bokkute yàlla li xel mën a jàpp mooy lu mën a am la mën a ñàkk maanaam jaayis la lu bokkute yàlla ak amam akum ñàkkam ñoo yemoo dong dong dong ndax bul gis rek mbindeef yi am tax nga ne mbindeef ak amam mëntoon a ñàkk ndax bu fàtte ne waxal nañ la yoo xam ne lu ci nekk xel nangu woon na mu am te amut ndax mumkin mbindeef ba nga ko waxee jubluwoon ci li am nga jàkkaarloog moom mumkin rek mooy aji mën a am ci xel rek lépp lu mën a am rek mumkin la ndegam nag mbindeef ak amam ak ñàkkam ñoo yemoo dong dong dong li xel nangu mooy coobare yàlla kàttanam moo ñëw nag amal yenn mbindeef yi ñàkkal yenn mbindeef yi waaye bu fekkee da nga ne mbindeef yi am kat ñoo sos seen bopp kon da nga wax loo xam ne xel du ko nangu ndax kon day mel ni da nga ne yaara ngi yoo xam ne ñoo yemoon képp gannaaw ba kenn ka wëlbatiku ëpp doole moroom ma ci amul dara loo xam ne moo ca wàll si ëppal ko doole ba mu ëpp doole moroom ma ci misaal boo seetoon ñaari dërëm yoo xam ne ñoo yemoo képp képp nga fekk balaas boo xam ne balaas bu baax la amul benn sikk nga jël benn dërëm teg ci boolu balaas bee jël beneen dërëm teg ca boolu balaas bee ñaari booli balaas yi dañoo war a yemoo képp màndaxonte waaye benn ba mënta jekk-jekk rek wet maanaam daanu ëpp doole moroom ma ci lu dul geneen kàttan moo ca wàll si boo nee nag beneen sabab mel ne beneen doole moo ñëw ëppal doole benn dërëm bi nekk ci boolu balaas bee ba mu ëpp doole dërëm ba nekk ca boolu balaas ba ca des xel dal di koy gaaw a nangu waaye nag yaar ya yemoon képp képp képp gannaaw ba kenn ka jekki-jekki wëlbatiku ëpp doole moroom ma ci lu dul benn benn sabab ci lu dul benn benn benn sabab loolu la xel nanguwut ci loolu nag kon amuk mbindeef ak ñàkkuk mbindeef ñoo yemoo képp képp képp bu mbindeef na wëlbatikoo sos boppam day mel ne kon yaar ya yemoonte woon képp képp kenn ka wëlbatiku na ëpp doole moroom ma ci lu dul beneen sabab boo xam ne moo ca wàll si ëppal ko doole kon nag li xel nangu mooy nga jàpp ne amul mbindeef ak ñàkk mbindeef ñoo yemoon képp yàlla nag moo ñëw ci coobareem amal ca la ko soob ñàkkal ca maanaam bañ a amal la ko soob mel ne da nga ko laaj ne ko ndegam nee nga mbindeef moom dafa sosu ana tegtal bu ñuy xamee ne mbindeef dafa sosu li mu xamal ne mbindeef dafa sosu mooy taqoo gi mu taqoot xarab ba xarab ba moom nga waxoon ne mbir la moo xam ne mënta taxaw moom doon ak boppam faaw day fekk jëmm rek mu taq ca mel ne yëngutu ak dal wala dajaloo ak tàqalikoo ak lu bare bare dañoo gis nag bindeef muy taxoo lu demee noonu li ki ñu gis nga ni ñu wopp ak wér di nelaw ak yow di yëngatoo ko dal di xiif ak mar di bànneexoo ko naqarlu yooyu yëpp xeeti xarab lu yoo xam ne jëmm ji koy taxoo rek xamal ne daa sosu ndax xarab bu moomee mu taxool ak sosoom moom nattabli woon ko kon nag lépp lu taxoo moom mën laa tàggoog moom it da ngaa sosu rek moo tax mu teg ci arab bi moom nee na sosu gi mu sosu lu mu gàttaar lool la ndax buñ dajaloo ñuy toog wóor na mu ne suñ dajaloo gi ak ñàkk dajaloo moo ko jiitu woon kon suñ dajaloo gi am nag tàmbaliwaay doolu teqalikoo itam gannaaw bi mu dajee nii ba noppi itam dana xam ne suñ teqalikoo gi xarab la boo xam ne gannaaw boobu ñàkkee ba noppi ndax ak tase moo ko jiitu woon la door a am ba tey lu yëngutu dana nu wóor ne yëngutu boobu ñàkkul fu mu dale lu ne tekk itam dal dana nu wóor ne tekkam jooju ñàkkul fu mu dale ci misaal su ma xiifee dana nu wóor ne xiif gi ma xiif ñàkkul fu mu dale su ma reggee dana nu wóor ne reg gi ma regg ñàkkul fu mu dale su ma nelawee dana ma wóor ne nelaw yi ñàkkul fu mu dale kon xarabu moom am gi mu am fu mu dale sosu lu mu wóor a wóor la ndegam nag mbindeef mënta tàggoog yooyu moo tax nu xam ne kon mbindeef moom dafa sosu ni xarabu moomu le sosoo moo tax mu ne li ñu tegtaloo ci ne xarab bu dafa sosu mooy dañoo jàkkaarloog xarab bu muy am aka ñàkk di ñàkk ka am bañ am ba yàgg mooy bëtiku am wala mu am ba yàgg mooy bëtiku ñàkk alxarab da ci bopp nee na buñ ko bëggee leeral ba kii jàng mën koo xam bu baax kon nañ koy tombal juróom-ñaari tomb bi mu ne xarab bi dañ koy tomb juróom-ñaar tomb ndax mu leer ba jëkk mooy nga wax ne bu ne rekk jëmm ji ne léng moo am gannaaw jëmm ji ne léng ji am na lu tudd xarab bi loo xam ne mooy ñëw taqoog moom nga xam ne kon jëmmi xarab bi ci boppam moom nga njëkk a saxal ne lu am am la muy benn ñaareel ba mooy foo ko fekk day taq ci jëmm waaye mënta beru ñetteel bi mooy xarab bi ndegam dañoo bari te itam wóor nañu ne dañoo sosu kon ñàkkuñu aji jëkk bépp lu sosu rek faaw mu am aji jëkk ñeenteel bi mooy xarab bi ci boppam mënta toxu mënta toxoo ci jëmm ji jëm ci jeneen mel ne yëngatu bi nekk ci yow bu ne jëm yëngatu googa mooy toxoo ci yow dem ci keneen bu ne mar wu nekk ci yow waa xiif bi nekk ci yow jëmm jooga mooy toxu dem ci keneen loolu ñeent la juróomeel mooy xaral bi foo ko fekk lu sosu rek moo koy amee lu am fu mu dale rek moo koy amee waaye xadiim muy yàlla ak ay meloom ak kituram yooyu du am xarab du juróom benneel mooy nga wax ne xarab du foo ko fekk benn day nëbbu rek mbaa mu feeñ waaye mënta boole nëbboog feeñ ndax nëbboog feeñ dañu ñaari safaan yoo xam ne mënuñoo bokk tase bi ko juróom ñaareel mooy nga ne xarab du foo ko fekk du doylu ci boppam faaw rek mu amuk aajowoo ni jëm ju ne léegi doone mbindéef te aajowoo jëm ci ka ko sos xarab bi it gannaaw ba mu aajowoo jëm ci jëm jum taq da cee boole du mën a doylu ci boppam faaw mu aajowoo jëm ci ka ko sos te boole ko jëmm joojee gannaaw boo ne xarab bi faaw day taq ci jëmm nga cey dolli ne moom nag mënta doylu ci boppam mukk-mukk faaw rek mu aajowoo waaye ak doylu moom du ko mën a def day jàll layal la nga waxam ne yàlla dalewul fenn mu ne liy dëgëral ne yàlla dalewul fenn mooy su fekkoon ne yàlla dafa dale fenn kon mbindeef la du ñàkk ku ko sos te it boo waxee ba ne am na ku sos yàlla war ngaa wax kon kooke itam ku ko sos kooke itam bu ñëw foofu waxal ku ko sos mu mel ne kon boo nee mbindeef yi day yàlla leen sos waaye yàlla ci boppam am na fu mu dale daa am ku ko sos kon xam nga ne nga yàlla am na lu mu sàkk amal ko waaye moom it daa fekk ñu sàkk ko amal ko nga xam ne kon yàlla faaxil la aji def la mafaal la ku ñu def la loolu moo tudd ak dawru loolu la nga topp ko lu wéy bañ am fu mu yem nga xam ne boo ne yàlla moo la sos waaye am na ko ko sos faaw nga jàll ne kookee ko sos kat moom it am na ko ko sos jàll ne kooko it kat am na ko ko sos bul taxawal jàllal ne kooko it am na ko ko sos muy wéy di wéy di wéy foo xam ne amul yemukaay loolu nag moom la xel nanguwut te xel nangu daal mooy am na kenn koo xam ne moo sàkk lépp lépp lépp te moom kenn kenn sàkku ko ak dayru nee na mooy gën a jëmm ji moo sos kii waaye moom itam kii moo ko sos li ci dama ne yàlla moo sos mbindeef yi ci nattale ba lépp nag teg ca ne yàlla it kat am na ko ko sos kon yàlla aji sos la waaye ba tey ku nu sos la loolu mooy ab dawru te sosu nag mooy nga topp loolu muy wéy di wéy di wéy ba nga am fu mu yem ndax da nga wax nga ba ne yàlla am na ko ko sos bu taxaw foofu jàllaatal ne kooku it am na ko ko sos bu taxaw foofu jàllaatal ne kooku it am na ko ko sos mu wéy di wéy loolu daal xel nanguwu ko li xel nangu daal mooy am na kenn koo xam ne moo amal lépp lépp lépp te moom nag kenn kenn kenn ama lu ko day layal lañu waxoon ne yàlla du jeex mukk mukk dafiy des ba faaw faaw faaw mu ne ni ñu ne bu fekkoon ne da nga ne yàlla dana dem ba yàgg mu jeex kon li muy tekki mooy la nga waxoon ne yàlla dalewul fenn moo deñ ndax yàlla ndegam dana jeex rek kon dafa aman fu mu dale ndax lu am fu mu dale moom dana am fu mu yem waaye ndegam moom nag dalewutoon fenn kon moom du yem fenn kon nag xam nga layal nga léegi ne yàlla dalewul fenn fenn te boo nee dana dem ba jeex kon la nga waxam ne dalewul fenn loolaa deñ kon aman na fu mu dale kon loolu moom yow mën naa layal dëgërul nga léegi ne yàlla dalewul fenn te boo ne dana yem fenn rek li muy tekki mooy am na fu mu dale woon la nga waxoon ne nag yàlla day moo sàkk mbindeef waaye ñuroo ceeg lenn lenn rawante na mu ci yemoog lenn lenn loolu nee na yow mën naa layal ndax da ngay wax ne su fekkoon ne yàlla dafa yem ak mbindeef kon da nga daal di wax ne mbindeef la te kon am na fu mu dale am na fu mu yem ni mbindeef yi rek te kat bu fàtte ne léegi-léegi nga waxoon ne yàlla dalewul fenn te du yem fenn te leen lu ne ci ñoom ñaar joxe nga ci aw lay wu dëgër a dëgër kon nag li wër rek mooy yàlla moo sàkk ñëpp mbindeef waaye nag li mu wut ak menn mbindeef rawante na muy yemoog menn mbindeef tum dafa jàll si ci ni ñuy layale doolu gi yàlla doolu ci boppam lii dëgëral ne yàlla dafa doolu ci boppam sëkk-sëkk mooy da ngay wax ne bu fekkoon ne nekkul ku doolu ci boppam sëkk-sëkk benn nga ne dafa nekk xarab maanaam di aw melo woo xam ne faaw day fekk jëmm rekk mu taq ca te kon la nga waxoon ne yàlla kat dafa meloo almahani ak almanawiya day daldi deñ almahani bu fàtte ne mooy alqudratu al iradatu al ilmu al xayaatu azamu al basaru al kalaamu maanawiya mooy yàlla doon al qaadiru al muridu al alimu al xayu al samihu al basiru al mutakallim bu fekkoon ne yàlla da di xarab di aw melo woo xam ne mën taxaw boppam sax faaw day fekk jëm rek mu taq ca kon ci dëgg-dëgg du melowoo maxaaneeg maanawiya te li wóor moom mooy maxaaneeg maanawiya moo leen jagoo faaw rek melo yu mat lañu mën leen a ñàkk melowoo yàlla ñàkk doole ci boppam boo ko tuddee rek benn nga ne yàlla day xarab te wax nga léegi loolu na nga koy layale nga tekki ne mbaa boog kon muy jirmu maanaam nekk jëmm ju ne léng ndax xarab ak jëmm ju ne léng muy jirmu foo leen fekk rek mbindeef lañ dañoo sosu faaw rek du mu doolu ci seen bopp kon nag boo ne woon yàlla dafa nekk jëmm ju ne léng li muy tekki mooy dafa sosu te faaw mu aajowoo ku ko sos ndax mbindeef mu ne ñàkkul ku ko sos te faaw mu aajowoo jëm ca kookee ko sos du mën a wéeg boppam mu ne nag seetal ne waxoon nga bu leer a leer layan nga bu dëgër a dëgër ne yàlla dalewul fenn te du yam fenn kon nag du mbindeef ndax mbindeef moom faaw day dale fenn yam fenn kon ci dëgg-dëgg yàlla dafa doylu ci boppam nekkul xarad nekkul jirmu maanaam du melawu mënti taxaw boppam fekk jëm mu cay taq du itam jëmm ju ne léng ndax lu mu ci doonoon rek daldi nekk ku sosu te ku sosu moom foo ko fekk rek du mën a wéeg boppam fa jàll si ci layal ne yàlla kenn kepp la mu ne bu nekkutoon kenn dara du am ndax kon bu dee ñaar mbaa ñett seenu jàppante ak seenu xëccoo day tax lépp lépp yàqu dara du sotti boo gisee nag ni mbindeef yi demee ak ni lépp lépp tegoo cib nos bu cib xocc moo la xamal ne kenn rekk moo koy doxal ni mu ko waxee ci alquran asamaan ak suuf bu fi ay yàlla nekkoon lépp a yàqu mooy law kaana fihima alihatun illa allahu la fasadataa kon mbir yi ni muy doxee tegu ci benn nos dara du rëcc dara du pëccet wane ne ne benn yàlla rekk moo am te itam boo nattale woon ne ñaari yàllaa ngi nii ñoom lépp day buñ bokkee amee melo yi yàlla war a amee xanaa duñ mën a bokk ak bëgg aku bañ saa yu nekk bu ñu safaanoo nag kii ne lii day am ka ci des ne déedéet loolu du am ñoom ñaar ñëpp buñ bokkee kenn mënu caa wéyal ay waxam ñu xam ne kon kenn du ci yàlla bu ca kenn ka mënee wéyal ay waxam ka ci des mënta wéyal la wax kon ka nga xam ne la wax moo am kookaay yàlla ka ca des du yàlla wax nga wax ne yàlla melowoo na xam ak man ak sañ ak dund yent melo yi mënuñoo ñàkk dañ ko xamee mooy bu fekkoon ne melowootoon yent yi kon dara du am melowoo gu melowoo yent yi moo tax mu mën a amal li am te bu fekkoon ne melowoo ko woon kon du mën a amal dara dara te kon dara du am képp kuñ ne yaa amal yaa sàkk faaw nga amee xam-xam amee man-man amee sañ-sañ amee dund yent yi nag bu ko ñàkkoon kon du mën a amal dara te bu amootoon dara dara du am wax gi wax ne yàlla amee nag dégg amee na gis amee nag mën a wax moom nee na boo koy layal da nga koy def ñeenti tomb ngay wax ne alquran mooy benn tomb ba ñaareel ba mooy hadiis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa kaana allahu samihan basiran ak wa kallama allahu musa takliman alquran alquran wax na ba tàyyi nu yàlla amee dégg gis ak wax sunna itam noonu muy addi yonante bi mu ne ñetteel ba nag mooy borom xam-xam yépp naase nañ ci loolu ne yàlla amee na sàmm ak basal ak kalaam ñeenteel bi nag nee na mooy li al imaamu Sanusi wax dane woon Sanusi dane ñetti melo yi muy am ak dégg am ak gis am ak mën a wax su ko yàlla melowootoon kon day melowoo seeni safaan xam nga seeni safaan ak manqué la ndax ñàkk dégg moom taxa fa sës ñàkk gis gumbaa fa sës ñàkk mën a wax muumoo fa sës kon nag nee na yetti melo yi moom melo yu mat lañ ci yàlla su ko yàlla melowootoon faaw rek mu melowoo seeni safaan te seeni safaan ak manqué la te ak manqué jomb na ci sunu borom li nga xamee ne yàlla kenn waral ci moom ne faaw mu def nangam mbaa nangam sañu koo def loolu mooy soo doon mbindeef nekkut jaayis nga daal di wax ne kon bu nekkul jaayis moom mënta ñàkk nekk waajib mbaa mustahil léegi moom nekkul jaayis rek faaw nga ne kon daa nekk waajib mu mënta ñàkk te bi ñoo mbindeef ne nga woon ñaari xaaj la am na ci lu mën a am te am am na ci lu mën a am te amut loolu na mooy wane ne kon du waajib ndax bu doon waajib lu mënta ñàkk kon faaw rek day am te du mën a ñàkk waaye waaye am na ay mbindeef yoo xam ne xel nangu na seenu am te amuñu te weesu nañ ko ci gannaaw mun laa wax itam ne daa nekk lu jomb ndax lu jomb nee nga woon mooy lu mënta am te gis nga mbindeef yi niñ baree ñun ñi toog ñi ay mbindeef lanu te da nga ne woon lu jomb mooy lu mënta am kon nag li wóoru moom mooy mumkin mooy lépp lu mën a am rek dañ koy bàyyi ci coobare yàlla bu ko soobee amal bu ko soobee ñàkkal waaye kenn mënta wax ne weesu na jaayis ndax bu ko weesoo mënta nekk lu may waajib ba mustahil te mënoo wax ne waajib la ndax am na lu mën a am te amul mënoo wax ne mustahil la ndax yi am ci mbindeef yi daa bari kon nag lay wóoru nga wone ne mbindeef moom jaayis rek la lay yi nag nee na foofu la yam boo dee wàññi nag nu mu toll fukk lañ ñoom ñëpp melo yu tudd al wujoodu te mooy an nafsiyatu am na ci benn lay dawaatu sal bi juróom lañ al xidam al baqa al muxaalafa al xiyaamu bi nafsi al waxdaaniya juróom yooyu la juróom lañ waaye teewul am nañ juróom benn lay nga ne ko waaw loolu tax ñoom ñu juróom mën a am juróom benn lay li ko waral de mooy da ci am kenn koo xam ne ba nga ca tolloo da nga ko waxal yaari lay te mooy alxiyaamu bu nafs ndax da nga ne woon ñàkk doole ci boppam mën nga koo nattale ci mu nekk xarab bi di aw melowu tax ci jëmm nga daal di koy layal loolu bëti ko ne mën nga koo nattale muy jëmm ju ne léegi daal di koy layal xam ne foofu yaari lay fa amoon da ba ngay wax alxiyaamu bi nafsi kon nag moo tax dawaatu sal bi ñuy juróom ba noppi am juróom benn lay soo boolee almaani ak almaanawiya daañu mat fukk ak ñeent waaye yaari lay rekk lañ leen boole te lee ko waral juróom-ñett yi dañ leen a boole wenn lay ndax ñoo bokk lu ñuy tegtale ndax dañuy wane ne bu yàlla miloo wutoon kàttan ak coobare ak xam-xam ak dund kon du mën a amal dara te kon dara du am loolu moo doon lay wax qudra iraada xilmu xayaatu nag ku ne nga génne maana yi ba jàkkaarloog moom muy qaadir muriid xaalim xayu ñoo bokk wenn lay woowu juróom-benn yi des dañ boole leen wenn lay mooy samhu ak basar ak kalaam nga génnewaale seeni maanawiya mooy samiya ak basir ak mutakallim juróom-benn yi wenn lay lañ leen waxaloon waaye nag wenn lay wa dañ ko tomboon ñeenti tomb wane ne benn tomb mooy alquran wax na nu yàlla meloo yett yi ba ca topp di addis ba ko ñetteel bi ijmaaxul xulama maanaam boroom xam-xam yi daje ci ne yàlla meloo na melo yi ba ko ñeenteel nag mooy la asamaas yi waxoon ne melo yi melow mat la yàlla mën leen a ñàkk a meloo ndax bu leen meloo rek daal di meloo seeni safaan ndax ñàkk a dégg moom tëx moo fay sës ñàkk a gis gumba moo fay sës ñàkk a wax luu moo fay sës ba tey nee na boo dee seet aljaais aman na wenn lay doon lii kon boo ko boolee fukki lay lay doon ndax boo nee an nafsiyatu aman na benn lay asal biyatu juróom lañu waaye teewul amoon nañ juróom benn lay comme juróom ñaar almaani ak almanawiya ñu boole leen yaari lay mu juróom ñeent nga boole ci nag benn lay wu nga xam ne aljais moo ko moom mu fukk